رمضان محلى ايامك بارك هالمولى وادامك الجنة تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك يا رمضان محلى ايامك الجنة تعطر انسامك صيامك كلها waaye dinaa xam ne maa ngi occupé ay fuuf xam naa mu ngi jàppale dama oo man loolu buñ biscuit xaaral ma kon xam naa mu ngi jàppale dama oo macha allah ak tubaab bi dégg olof sax Onyango laa doon seet kan mooy Onyango c'est qui Onyango kan mooy Onyango mais yow day kat. yoo xam ne xam mais da nga may déglu xam nga da ngaa ñëw fekk si da nga may yow noo ñëwee a sonné di sonné di sonné ak bëccëgu weer koor yi quest a doo toog sa kër ak sa habillement bi say verre sa mbaxana affaire. eh da nga may jox ko xam c'est toi pour qui ko xam. mais yow yow mais yow kii kii yow. bu fekkee ne location bi wut kër gi fees na désormais désormais kër gi fees na mais kan moo euh, la wax man damay location nga def ak mu mel ni njuuma nii ak sa verre yi. mais mais mais yow set. laa wax ol ñàng la ma set. kuy ol boy xoolal loolu war kon ñàng bu fi nekkee wax ma su fi nekkul nga wax ma mais dama xam kooku dama xam yow xam woon nal dama ko nekk fii xam mais ici c'est ah, moi ici c'est toi c'est moi oui c'est moi ah. c'est moi ma ngay dir sa maison ah fii ay kon ñàng ak ay kii xolal ñooñu ñëpp man fii maay glace ah. fii maay aw maa ngi laa sant di la gërëm aw say ayat na mais kii lii lay naan jur mu jur dee jur doom mu dee taxaw yar jur ne léegi la tooy jéemañ ma war a yar dal kee la yar dal ma xaw ci kër gi nak du neex ki ma moom ci kër du neex de déedéet yaram moo mo tan woro wona wax ni sa soxna ci fi bàyyi man maa ngi xam sa soxna la mais franchement le kër gi nek ma fi nekkin bo xam ni amul problème du ànd ngay dégg yalla amu ben problème man ma ngi ni du ànd gis village da dire sun kër téré dé mais dama ñëw pour agréé sama itit agréé sama jàng itit ma sama jàng ko ak université laa ndaysan dina am bak baag moom dinaa am ba pare. mais xoolal bi maa ngi maa ngi ko sama xam sama deux ans laa fa nekk. université nga sama licence laay waaj rek. gis nga mooy jëriñu tey safu la. waaye ba ma rey am safu la aw li def moo la. nan laa la yeewoo óolob xëdd te yeewu la am ah man maa ngi yeewu gis baraada bee kaas yëpp taxa meew ah man nelaw ba yeewu ndekete xëdd naa ba dem bàyyi fa ah li moo la Afrique. lii moo la Afrique Afrique daal ba sa morom yeewoo yeewu sàngaan la nelaw mu dem yoon ni naan doon du dem na lii du am du am du ba ma sànga pour la ma sànga waay ba ma sànga waaw man xëduma léegi léegi léegi man maa ngi nii xëduma léegi nan la maa def patron bi fii la patron de la maison ah, mais da ngeen di def ndànk defal naa ko wax la defal naa yaa ngi juum nag. pourquoi yaa ngi juum bu baax. pourquoi ma juum kër gii xamoon na mus cosaan xamoon nu. dama ko soxla xam parce que sama dama yokk sama xaalis di fay. yaa ngi fay si mooy fay ni ngay comporté wu. damay comporté wu dama neex parce que sama xaalis laa génne di fay. mais pourquoi yow dina génn kër gi. kër Sénégal lu tax nga. yow dina génn kër gi. mais yéen mais mais mais mais lan la. grand mais kii. mais bu ma la kii locale tax na. mais il faut le mettre à sa place. mais mais mais mais gars amul benn tekki. xam nga su fekkee su fekkee paie. il faut da nga koy teg place am dañ koy jéem a rusul. waaw bàyyi ma xaru rek bàyyi ma xaru rek. déedéet doo jot a xaru. Ah, sooy xaru man ak yow ñooy am. déedéet toogal. déedéet. waaw déggu laa ne wax dina weeri feeñ dama dama yaakaaroon sax kóor yi ginnaaw suba la bu dee weeri feeñ. waaw ñëw na suba la. ñu ñaan yàlla wóor ko si jàmm wóor si jàmm ak sa xanaa ko ah, ah, ah, ka ka man or ka si jàmm ka ka man jéem a sa gure di fendi nag man damaa yaakaar da ngaa orse dama orse mais ni ma waxee rek weeri feeña man loolu neex man dama bëgg taxaw à hauteur kim tunay di ko séentu ñaan yàlla ba borom mais mu joree ma feeña bi ba ma amoon crise kay gaañ du ma dee gaañ du ma sini waaye bul jooy weeru gi la ndaw de weeru weeru ramadan weeru mën a yooyloo weeru am barke weeroo baax weer ba gën si noonu waaye weeroo mën a yooyroog nit weeroo mën a raagaloo doomu aadama weer waa xamante ne say coñcam yi dina mën a bënn potam meew yow wóoral gis nga guddi ma defaral la lu neex nga lekk ah, loolu yëpp satisfaire hmm. Hmm. bu tëdd nii bàyyi damay jooy jooy ma lool sax looy jooy. ni ma ko waxee mooy ñaaw quoi. ay waay jékki-jékki na ma weeri feeñ na weeri umboon mu fekk ma si kaw tund yi mën a séntu. yëfu ja yëfu yàlla ngay jooy. yëfu yàlla du yëf la ñun tamit maa yàlla bonu ko jox ba ma jaxasee yàlla. waaw déglu la rek man waxuma du yëfi yàlla de waxuma du yëfi yàlla de. waaw yëfi yàlla du yëf la. bu doon yëfi yàlla du ko jël moom kese la mu seesi. نتعطر أنسامك ومحلى